Ousmane Ben Thioy ñu ngi lay nuyu. waaye maa ngi lay fay soxna si. jamono yi ñuy wax ngay tontu yaa nga ba waalo fi nga xamante ni fa ngeen di màggalee bicentenaire bu talaatay Nder euh, laata ñoo gën a xuus ci waxtaan wi nga wax ñu li nga xamante ni mooy euh, seen kuréel gi ak ci lan ngeen di yëngu. waaw asalaamaaleykum euh, soxna si maa ngi nuyu auditeurs yëpp ak auditrices yi vraiment di leen euh, di leen jaajëfal euh, di kontaan ci yéen ñoo ngi tey jii Nder wàllu Nder nag ku ko wax wax dëkk bu organisé chaque année sept mars muy muy muy fàttali talaatay Nder nga xam ne benn talaata la amoon mhm. donc Nder di ko organiser ay at yu bëree andi na fi ay autorités yu bëree mhm. année bii nag euh, ndeer ubbi affaire bi parce que talaatay ndeer ndeer pays la woon ñu bëri dañoo tas dem ci yeneen dëkk léegi nag euh, ñu organiser ko boole ci commune yi ñu boole ci département de Dagana région de Saint-Louis et le maintenant ci noonu ci noonu lañu ko lañu def monter benn comité de pilotage boo xamante ni ñu ngi dajalee doomu gox bi yëpp nga xam ne am na coordonnatrice njiit am na secrétaire général comme man am na euh, ñu yor côté finance ñu yor côté culture. ak mhm. ñu yor côté côté organisation. d'accord xeex bi yàgg na ci yéen ngeen yàgg cee taxaw li ngeen bëgg mooy datu 7 mars maanaam juróom-ñaari fan ci weeru mars ñu institutionnaliser ko maanaam mu dem ba ëpp doole sax euh, datu 8 mars tey ji mhm. est-ce que seen combat boobu jàpp ngeen ni. fii ci Sénégal dana fi mën a nekk ñu institutionnaliser ko pour de bon. waaw loolu am nañ ci yaakaar bu baax ndax euh, li tax ñu am ci yaakaar ñun dañ ko commencé. Mhm. ñun bu fekkee ni royukaay ndax huit mars euh, États-Unis lañ ko jëlee. ci ay jigéen ñu doon ñu doon ñu doon liggéey ak ñu doon bañ ainsi de suite ñun nag Sénégal dañu am ay jigéen ñoo xamante ni wax dëgg yàlla kuy kuy kuy wàll dafa fekk sa dëkk dafa dafa ayewul mm. Sénégal ñun wàllu dañu am jigéen ñi xamante ni dañoo def jaloor gu rëy fii ci Sénégal ci Afrique ak ci àdduna ba ñëpp di ko wax donc ñu am yaakaar ni ñun bu fekkee ni journée rek la ñuy wut journée sept mars yi euh, war nañ ko mën a war nañ ci mën a xeex war nañ ci mën a wax war nañ ci mën a def suñu kéemtulaay kattan ba état du Sénégal jël ko dugal ko ci agenda culturel wax ni kat Sénégal à partir de maintenant 7 mars fu mu jotee te mooy journée nationale de la femme ñu commencé combat bi commencé affaire bi. yam yaakaar ni peut-être ñun dinañ ko réussir wala ñeneen dinañ ko réussir mais lu nga xamante ne lu jafe la ndax état du Sénégal bu ci taxawee président de la république bu ci taxawee dëkk lu mel noonu loolu nekkul benn amul benn problème donc loolu moo tax ñu am yaakaar ni que mu nekk président bi que mu nekk président bële di ñëw dinañ continuer di ko xeex continuer di ko wax di ko jooy fu ñu ko mën a jooyee ba ñu mën ko voter sinon même député yi def ko projet de loi yóbbu ko assemblée ko ndax rencontré nañu ak député yu buñ ci waxtaan ak ñoom dañoo jël affaire bi def ko seen yëf xam ne ñoom ñun li ñuy xeex ñoom moom la ñuy xeex donc am nañ ci yaakaar bu baax a baax. Mhm. ren nag mooy ñaar téeméeri at kon ñuy màggal événement mooy la xewoon ca Nder atum ren mi lan moo gën a nar fës ci bis bi nu ngeen ko nar a fas màggale. waaw xam nga euh, ñaar téeméeri at bu tout le temps lañ koy feetee. Mhm. ndax euh, ñun ñaar téeméeri at yi fi la fekk nañu fi mais ñetti téeméeri at yi amuma yaakaar yi dinañu fi fekk. Mhm. donc ñeneen la fi fekk ñun dañoo bëgg génération yooyu di ñëw ci ñetti téeméeri at yi bu ñu eggee ci ñetti téeméeri at yi déjà ñu xam ni ñaar téeméeri at yi kat am na comité de pilotage bu fi nekkoon. marqué ko lool te liñ ko bëgg a marqué mooy jafe-jafe yëpp yi nga xamante ne moom la ndeer moom la ndeer am ñu ci wàllu yoon xam nga wàllu yoon ndeer bu ko bur nga dugg ndeer boo yoree oto da ngay boo fooroon def benn fanweeri minute dañ fa def waxtu wala ñaari waxtu ndax yoon bu bon ndeer amul école bu baax ndeer amul poste de santé ndeer amul euh, ndox te waalo moom mooy nandal ndax ndeer ci boppam ñaari robinet ndedd la am benn bi dina paan parfois lu yàgg du ñu koy door a réparer électricité bi lakk fay lakkul fay ah? euh, côté santé bi wax nañ ko musée bi nga xamante ne tey boo ñëwoon ndeer nit fii mooy ndeer doo am benn benn repère nga xam ne dina la wan ni la fii la jigéen ñi taale woon seen bopp lu dul guy ngaa la guy gu fa nekk bi maintenant looloo tax ne ñu ni deux cent ans bi dañ ko fas yéene li fas yéene liggéey ba am ci musée musée bu nga xamante ni ku ñëw ndeer di nga mën dem visiter ko dinañ ci bokk na suñu doléance yoo xamante ak suñu suñu suñu suñu point muy yoon bi nga xam ne moo jóge Ndeer moo jóge dem kër Momar Sarr ñu defar ko ba nga xam ne dem Ndeer dootoo wàllu ndox mi ñu saafara ko wàllu école beeg wàllu euh, wér-gu-yaram bi ñu saafara ko loolu ñun bu ñu objectif loolu bo mooy daanaka suñu point boo xamante ni mooy suñu point bu marquant ci bicentenaire u Talaatay Ndeer bi pour ñi nga xamante ni euh, xamuñu sax ñi nga xamante ni ñooy jigéenu Ndeer yooye ñu yàgg a wax ci taarix lan nga leen di mm-hmm. wax ñan ñooy ñooña ñooñu nag euh, wax ci ñoom day yomb parce que jigéen ñu jàmbaare woon nañu parce que euh, bu fekkee ni yow da nga nekk jigéen di bañ di bañ di bañ di bañ ba ay noon ñëw fi bëgg di xeex ak yow xeex ak yow pour def la jaam wala pour def la naka sudul noonu nga xeex ak ñoom ba dàq leen lu sore ak dëkk ba xeex ak ñoom ba kenn ci jigéen ñi mbaxaneem wadda ñu xam ñu noon yi geesu xam ne ñii di leen topp ay ay ay ay jigéen lañu duñu ay góor seen lingeer bu ñu wax lingeer mbaaka jaam moo jiite woon loolu ñu ñu continuer di jàmmaarlook ñoom di jàmmaarlook ñoom ba seen i jeex ba seen i ngànnaay jeex ñu dellu si si dëkk bi lingeer bi boole leen ñoom ñëpp ñu leen ñii kat bu ñu fi fekkee dinañu jàpp def ni jaam te bu ñu defee jaam ëllëg suñuy sët dinañu am way bu ñu am way bu rafet lu ñuy pexe nañu booloo ci benn nekk ñu ñëpp taal seen taal suñu bopp def doom moo gën ñu ñuy yóbbu def ñu jaam mhm. xam nga loolu ku def loolu pour bañ def jaam jàmbaar ko jàmbaaru jigéen yooyu fulay jigéen yooyu ngoruy jigéen yooyu euh, fitu jigéen moom la Sénégal am te Sénégal jigéen ñi dañu war a roy ci jigéenu ndeer yi te jigéen ñu ndeeru démb yi ñoo fi nekk ba léegi boo ñëwee fii ndeer jigéen ñi ñooy dem ci tool yi jigéen ñi ñooy dem ci dex gi jigéen ñi ñooy def commerce jigéen ñoo yor kër yi te loolu ndeeru démb gi ak ndeeru tey gi dara la wutale wu leen bu bu talaatee ndeeru démb bu bu bu nalaatoon am tey gi gëm naa ne jigéenu ndeer dinañ dugg ci nekkal seen bopp. Mhm. Euh, waaw mhm. dañ doon bañ waaye nan ko defee nag maanaam dugg si nekk taal seen bopp ñu ku nekk ak nañ ko apprécier mais ñu mhm. bëri nag euh, nee nañ loolu euh, ci wàllum diine diine ko nangu ko yow tey ji naka nga gisee boobu acte ñoom ñu posé waaw xam nga ñun ñun actuellement Sénégal dëkku jullit la quatre vingt quinze pour cent ay jullit la ñu donc maanaam téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi ak juróom ay jullit la ñu donc boo ko attee ci charia boo ko attee ci diine dangay xa da ngay da nga leen di condamné démb boobu ñoom li ñuy def acte boobu boobu Sénégal nekkul woon dëkku diine nekkul woon dëkku lislaam donc ñooñu li ñu defoon yàlla rek wallaahu yaalam yàlla rek moo leen di acte ci seen i mais acte bi maanaam li ñu posé pour bañ a doon jaam pour bañ nooteel pour li ñu wax naan au waalo dañ ñuy rey rek mais kenn du ñu toroxal donc ñoom ci boobu jamono man de dama ci d'accord te dama ci kontaan sama sag man fu ma taxaw ci Sénégal bu ma nee waalo laa dëkk nii dañ may xoolaat xam ni waalo waalo jàmbaar la waalo du des ginnaaw waalo waalo borom jom la borom fit la. Mhm. donc man bu dee ci boobu jamono man de kontaanee wu ma leen ci dama ci kontaan kontaan ci samay maam bokk ci. d'accord waa tey jii nag ndax yaakaar am na ci. Euh, loolu ngeen bëgg maanaam datu 7 mars ñu institutionnaliser ko ndax loola yéen yaakaar ji bëri na ci am nañ ci yaakaar bu baax a baax comme ni ma la ko waxee léegi euh, euh, seet seeti nañu ay ay boroom xalaat ay boroom xam-xam ñoo xamante ni ñu ngi ci ñu ngi ay député lañu ñi ay ministre lañu te ñoom ñëpp dañuy dañuy dañuy dañu dañuy dañuy dañuy dañuy taxaw ci parce que waalo dañoo gën ni ñoom seen maam waalo la ñu bokk donc buñ ci àndee liggéey ñun dañ ko commencé dem nekk ñeneen seen suñu ay doom wala suñu ay ñoom lay fekk traite bi loolu di am mais ñun dañ comme ay waalo waalo la ñu ndeer dëkk te moo ñu soxal euh, sept mars bi dañ ko jëggaani woon bu fekkee ni ñun dañu nar a set sept sept euh, huit mars dañ ko jëggaani woon am nañu wax dëgg yàlla euh, sept mars bu doy loolu donc dañ koy plaidoyer di lancer appel président de la république 7 mars mu def ko journée nationale de la femme en référence des femmes du du du, du Waalo des femmes de Nder suñu kilifa diine ñu fi nekk ñoom maam Diarra Bousso ñoom maam Fawa Dagale ñoom Aliou Cité Diatta ñooñu ñëpp ñu buñ leen boolee ci ci sept ci huit mars bi ñu jël 7 mars def ko journée nationale de la femme te bu boobaa comme ni gàmmoo ñëpp seen xel yi dem ci Tiwaawan ñu ñuy màggal Touba bu jotee ñëpp seen xel dem ci Touba. ñu 7 mars fu mu jotee Sénégal ñëpp seen xel dem ci ndeer ñu koy feete ndax ndeer mën a changé ndeer boo fu ñëwee tey jii ni mu mel euh, loolu rek moo ko mën a changé Sénégal delloo ko njukkal. Mhm. waaw bi centenaire u euh, talaatay ndeer bi nag atum ren mi dafa tombeek euh, xew-xew am ndax wàllum coronavirus ñu ngi koy waxtaanee ci réew yu bëri Sénégal sax jot na fee am yéen lu tax dàqu Euh, xew-xew bi ngeen dàq ko ba jëmi jamono ngir def ko. waaw xam nga ñun euh, ñun daanaka euh, ñu ngi suivre information yi ñu ngi xam ni xew ci adduna bi li xew Chine li xew kii di ñaan yàlla mu musal ci Sénégal comme ni ñu ko waxee président de la république wax na ni te loolu même bu ko président waxul woon sax nit yi seen bopp ñoo ko war a xam ne ne rassemblement yi mais itam du euh, ñu topp feebar bi rek ba ñëpp euh, euh, ñëpp bloqué ñu sonal traumatisé nit économie bi day day day day day lompoñ dem ak dikk bi day lompoñ te ñu xool ni wax dëgg yàlla rencontre bi ñu nar a def ndeer ndaje bi ñu nar a def ndeer pour jëmmal bis bi war na mën a war na war nañ ko mën a def jëlaal suñu suñu ay matukaay ba si noonu sax la am partenariat avec service d'hygiène bu Richard Toll wax dëgg yàlla ci suba ba léegi ñu ngi ci dëkk bi di pomper dëkk bi di di di di désinfecter lépp loo xamante ni rek lu lu nga xamante ni dina tax ba journée bi jàll ci jàmm. Mm-hmm. donc loolu moo tax ñun fommuñu bis bi dinañ ko def suba incha allah rabi ak autorité yi nga xamante ni ñu ngi fi amuñu kon que ce soit local que ce soit national. d' accord euh, ndax euh, gouvernement bi ci wàllum kom jàppale na leen. waaw gouvernement bi nag ñun seeti woon nañu leen seeti woon nañu euh, ministère yëpp euh, wax dëgg yàlla lu mel ni ministre de la femme lu mel ni ministre de la culture lu mel ni ministre de l'énergie bi nga xamante ne ma Mahamadou Matar Cissé moo ko yor doomu Waalo ñoom ñëpp seeti woon nañ leen jàppale nañ ñu nag ñu bëri ak ñu néew jàppale nañ ñu mais ñu ñuy xaar ci ñoom beneen peut-être jàppale bu gën a wóor parce que euh, yëfu ndeer yëfu talaatay ndeer euh, yifu national yifu yëfu Afrique la donc bis bu waree ñëw rek gouvernement bi waxuñu ministère yi mais président de la république la ñu bëgg sax moom mu teg ci loxoom ba nga xamante ne ndeer da koy yëg ci côté bu ne. Mhm. waaye nag bëri nañu ci jàpp ñu mel ni ñoom Oumar Sarr euh, Dagana ñu mel ni ñoom ñoom Aïda Ndiong ñoom député Aïda Mbodj mhm. ak yeneen autorités nga xamante ni ñu ngi ci waalo ak ñu ngi ci Sénégal. Mhm. Euh, lan moo fa gën a fës nag euh, ci noos gi. waaw li fi na mbir mi nag comme ni ma la ko waxee sànq ci programme bi war nañoo xëy wàcc kaa ñun ñaanal wax dëgg yàlla euh, way dawlu yi mooy lu jëkk ñaar ñu fi mujjee Sénégal yëpp yàlla def jàmm ci Sénégal coronavirus bi nga xamante ni mu ngi lëmbee adduna bi yàlla musal ci Sénégal musal ci adduna bi donc buñ jógee ci loolu case des tout petits yi nga xamante ni ñoom moo nekk ndeer dinañu fas yéene def seen seeni prestation def seen i seen i seen i euh, raconter un peu l'histoire euh, bu ñu paree ci loolu euh, pël yi naar yi ñu def pël yi danañ def seen i rit yi naar yi def seen i jaguar ñu àndandoo ci ci xeex bi ci ci manifestation bi bu ñu paree ci loolu allocution autorité autorité yi dinañ def seen i discours nga xamante ni ñëpp dinañ def seen discours ñu defaale aussi un mémorandum pour relater tous les problèmes du village et de la commune de de Nitch mhm. di pare lool nag troupe théâtrale bu mag bi ci Nder dina def théâtre raconté waat ñu vivre histoire talaatay Nder bi ba ñu taal kaas yi foofu la yem a dix-neuf waa monsieur Ousmane Ben Thioy jërëjëf ci waxtaan gi nga ñu accordé ci suba tey jii. yaa jërë jërë jërë ngeen jëf ñu leen di sant di leen gërëm di kontaan ci yéen trop ngeen waa Rewmi FM di leen ñaanal yàlla saxal leen yàlla dooleel seen rajo bi. Mhm. day mu nekk télévision incha allah rabi yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def. incha allah ñaanal ñu rek télé baa ci yoon bi. jërëjëf yàlla na nga nuyul ñu ñi nga xamante ne ñooy waa Waalo. waaw jërëjëf jërë ngeen jëf merci beaucoup jërëjëf.